bonjour euh, nuyu nañ leen ci heure bu baax bi miin ngeen heure bi euh, chaque jour à partir de 13h30 la lundi ba jeudi di leen jaajëfal yéen internautes yeeg euh, téléspectateurs yi jaajëfal rédaction bu télévision Futur Média jaare ko ci Fatou Kiné Dem mi ngeen xam ni moo leen doon dégtal xibaar yi ci kàllaamay Kocc miin ngeen heure bi bu baax a baax hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram dañuy ñëw daal di leen di jàllal leer li gën a fes ci internet bi maanaam ci réseaux sociaux yi internet donte du rek réseaux sociaux dañuy ñëw it tamit wax leen di leen sensibiliser. annoncé woon nañ fi ne mois d' octobre bi moo nar a nekk mois bi nga xam ne dañ ko jagleel cybersécurité mooy mois de la sécurité mois bi nga xamante ni vraiment gën a renforcer sensibilisation bi alerter leen informer leen moo tax euh, ci la ñuy profité di ci waxtaan ak ay borom xam-xam ñu ñu gën a sensibiliser euh, ñi nga xamante ni ñoo jëfandikoo internet ci mbirum euh, sécurité informatique wala cybersécurité ndaxte sécurité à cent pour cent moom jafe na lool ci internet la preuve bët ki démb bi bëgg bi amee ñëpp yëg nañ ko te pourtant ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko sos ñoom ci boppam ñoo amoon ay jafe-jafe. Euh, waaye jafe-jafe ñëw ñëwoon nañ ci ñi mu laal bari nañ lool lool lool lool ci boppam kii di Mark mi nga xamante ni moom ci boppam yëf yi da ko laal perte na ay milliards de dollars lu tolloog 6 milliards de dollars gannaaw euh, bañ ko évaluer ñeneen ñi tamit euh, mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci internet tamit amoon nañ ci ay jafe-jafe waaye weer wi moom gën a sensibiliser gën leen alerté gën leen a informer dinañ ci gën a am euh, taxawaay bu am solo d'ailleurs loolu tax ñu waxtaan ak kii di euh, Gérard Gérald Dacosta mi nga xamante ni min na ci émission bi nekk koo xam ne xam-xam dafa màcc ci mbirum sécurité informatique ñi gën a mën leen a euh, sensibiliser alerter leen ci mbir ni ñuy jëfandikoo lii di internet yi sensibilisation du doy ñu dégte leen élément bi. te octobre dafa nekk mois boo xamante ne dañ ko jagle mois bii nii. Euh, lu waay doon def euh, si domaine bi da gën a yokk day gën a yokk xañte bi donc euh, tey man déjà lu may commencé pour wax leen mooy internet du seen xarit certes dina leen dimbali ci lu bëri internet du seen xarit boo leen di dugal wala di def dara dangeen war a xalaat bu baax balaa ngeen di dugal lu si nekk ci internet tey dinaa leen jox benn exemple xool leen réseaux sociaux yi ba leen di ubbi compte gratuitement ngeen di ko ubbi mais est-ce que mos ngeen toog ngeen xalaat ne ñii ni moom plateforme yii nii ñuy utiliser lu tax ñu am xaalis dangeen war a xam que ñooñu tey yéen yaa leen tax ñoom ñu am xaalis parce que li ngeen di fa dugal li ngeen di utiliser plateforme bi mooy tax ñooñu ñu am xaalis parce que ñooñu tey dinañ permettre di jël seen données yi maanaam lépp li di dugal foofu noonu comme information ñu koy jaay ay structure yoo xam te nañ koy soxla pour mun a par exemple exemple ñoom Coca Cola pour que est yi yan produit li ñu bëgg ñoom ñu ñëw proposer leen ko wala yeneen boutique yu mag yi ak yéen tey dinañ permettre di jël seen données yi lépp li ngeen di dugal foofu noonu comme information ñu koy jaay ay structure yoo xam ne dañ koy soxla pour mun a par exemple exemple ñoom Coca Cola pour que est-ce yi yan produit la ñu bëgg ñoom ñu ñëw proposer leen ko wala yeneen boutique yu mag yi ak yeneen société yu mag yi pour mun a xam donc loolu la ñu woowee profilage web dañu mën a xam nit ki lan mooy habitude am sur internet te loolu mooy ñun lu ñuy dugal sur internet donc booy dugal terewuñu leen dugal mais boo leen dugal dugal leen lu am maanaa loo xamante ni suba du yàq seen der parce internet loo fa dugal. jaajëf Gérald Dacosta explication yi leer na mais surtout li nga wax ci profilage web yooyu nga xamante ni plateforme yu bari moom la ñuy jëfandikoo. nit ñi bari ñun dañ koy waxtaane ñu ci bari dañ naan man su may seet dara parfois sama Facebook daf ma koy proposé wala ba ma duggee ci internet bi dafa ma koy proposé yooyu noonu ciblage yooyu nga tuddee profilage web euh, ñëpp dañ koy waxtaanee te du ñu xam nu mu demee moo tax explication bi ñu ci joxee baax na marque yu bari moom la ñuy jëfandikoo ngir gën a mën a cibler se euh, xool seen ay cible ci dëkk bu ci nekk ñoom ci loolu la ñuy amee koppar xam naa dinañ ci ñëw gën leen ko expliquer waaye prétexte bi mu nekk ci mois d' octobre bii ñu nekk nga xamante ni mooy mois euh, bi ñu jagleel cybersécurité gën leen a alerter gën leen a informer gën leen a sensibiliser fi jamono toll la donc wax na yi tamit leneen lu am solo mooy lépp lu ñuy dugal nañ ko xam ndaxte sa peut retourner contre nous donc surtout léegi jamono ji nga xam ne var la personnalité yi bari fi mu ne ni dañ koy dund euh, jafe-jafe yooyu mën nañu wax lii 2012 àddina dox dox dox dox dox ci internet bi àddina dox ba yëf loolu ñu waxoon ci atum 2012 wëlbatikuwaat contre ñoom mu nekk lu lu lu doy waat te dara du effacé wu nag loolu dañ koy déterré waat di ko partagé waat donc lu mat a bàyyi xel la balaa ñoo cliquer euh, ci euh, internet bi chaque jour dañ koy wax ci ci ci émission bi sensibiliser leen alerter mais aussi dañuy may ay cadeau bu leen fàtte loolu mukk tamit ndaxte fii gis naa déjà internet yi maa ngi jàkkaarloog yéen ñëpp ci suñu plateforme Facebook live bi di jaajëfal équipe digitale bi nekk ci ginnaaw ñoom Adja Guèye Guèye ak kii di mag yi ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy jàpp ci ginnaaw ba tax ñuy gis seen commentaires yi en temps réel muy Facebook live YouTube live Instagram live en même temps ñi ngi ci YouTube bu télévision Média dem leen ngeen liker commenter ci euh, émission li xew ci biir internet rawatina yeneen émission yi daw ci télévision Futur Média mooy miroir du Sénégal Sénégal nag fi mu tel nii eh, téléphone portable daf ko yëngal ñu ngi wax léegi balaa ñoo publier partagé waaye am na ci yoo xamante tamit am na solo lool ndax dina tax eh, nit ñi nekk ci jàmm wala jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy dund internet tax wala téléphone portable tax ba eh, ñu régler problème boobu am na benn internet bu ñu envoyé la xew actuellement ci route nationale une bi nekk ci diggante Fass Mbao ak Petit mbaaw yoon ñi nga xamante ni ñooy jaar ci yoon boobu ñu ngi dund jafe yu metti vidéo baa ngi noonu ñu seetaan ko ndaxte euh, route nationale boobu daal am na jafe-jafe ba ci sax d'ailleurs ci diggante caaro yi ak euh, zone boobu euh, yoon yu bon parfois muy créer ay accident yu doy waar vidéo bi benn internet moo ñu ko envoyé ñu nit loolu dañ koy def ci internet bi wala yi tamit ci émission bi ngir ngeen gën a mën a xam wala alerter autorités yi solution yu bari dañ ko ciy créer acca li ngeen di gis nii ce n'est pas un marigot ce n'est pas un kii la à hauteur de UCS donc la nationale moo nekk nii dans un sens ñun on est dans un sens interdit et ceux qui doivent aller dans l'autre sens dañuy teggi carrément jaar ci kaw beneen yoon donc ici mën nga def euh, deux heures de temps entre Rufisque et ICS pour di kilomètres les bâtiments que vous am en en en devant. foofu moo ne woon euh, le réceptacle naturel de ces eaux là maintenant ces la là plus de réceptacle naturel ils sont dans la dans la route nationale bon c'est simple quoi aujourd'hui vous voyez Dakar tawul depuis euh, depuis dimanche et qu'aujourd'hui on est jeudi tu as l'impression que tawul démb li ngeen di gis nii ce n'est pas un marigot ce n'est pas. projet vidéo bi ndaxte loolu tamit am na solo ci émission yi ci bari ñu ngi ciy réglé ay problème euh, yu ni mel peut-être autorités yi bu ñu gisee lii nañ ci gën a am taxawaay bu am solo ci zone boobu tamit jafe-jafe diggante caaro yi tali boobu toujours ci ni route nationale boobu am na euh, ay jafe-jafe yu ci bëri comme ni ngeen koy gisee ci image yi ay euh, tali yu dagg wala mu créer ay lii ñu duppee ay accident. donc baax na yi tamit ñu alerter encore une fois ñii di autorités yi waaye bu leen fàtte mukk IGFM www.igfm.sn mooy su site euh, d'information bu groupe Futurs dañuy fàttali rek saa su ne ñu rappeler leen ko information yu wér te wóor la mais surtout parfois ci chaîne YouTube bu IGFM tamit dañuy def ay interview yu am solo yoo xam ne toujours da leen di soxal fi jamono toll moo taxit ñuy gën leen ko euh, fàttali mooy www.igfm.sn xam naa information bi ci gën a fees mooy actuellement nii euh, xalif général lu Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour di fas fas yéene waxtaan ak fidèles yi bu yàggul dara tey ci alxames bi ngir gën a leen a ñaax ci ni ñu fas yéene amale gàmmuk ren gi toujours ci mbirum Covid bi ñu ko doon wax diggante démb ak bërki démb ba mu jëlee dogal bi ba tey eh, naka la ñu fas yéene amalee gàmm gi ku nekk sa kër mais surtout gën a jàng ay alxuraan moom dina ci ñëw tey dina waxtaan ak eh, ñii di eh, taalibe yi ni ñu fas yéene amale gàmmuk ren gi di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér moom Serigne Babacar Sy Mansour Pierre Da Silva réalisateur connecté am na benn internet bu ma envoyé léegi maa ngi jàkkaarloog live yëpp nag euh, benn image bu am solo wax nañ war nañ leen ko partager mais c'est une image mille vaut mille mots comme disait Confucius je pense mën nañ ko partager internet yu ñu xool bu baax mën nañ ci commentaire waaw liggéey ñàkk jariñu image bi moom ku nekk nag ak ni nga koy commentaire voilà ni nga ko bi nga ko gisee mooy lii ngeen di gis nii ci écran bi baax na yi tamit ñu euh, xool ko commentaire ko ndaxte wax naa ko émission bi c'est interactive lépp loo xamante ne ay image la vidéo yoo xam ne toujours day sensibiliser alerte informer euh, téléspectateurs yi surtout suñu maire yeeg suñu paa yi nga xam ne heure bi baaxoo nañu di seetaan télévision Futur Média miroir du Sénégal yu ci bari duñ ko comprendre ci téléphone yi ak internet bi ñun moo tax ñuy ñëw di leen gën a expliquer image baa ngi noonu ngeen xool ko bu baax commentaire leen ci joxe ci bi ngeen ko gisee nii lan la seen yaram wala lan ngeen njëkk xalaat liggéey ñàkk jariñu loolu laa xalaat ak lu mu tar tar tar payor dina am incha allah liggéey rek image baa ngi noonu am na solo moo tax ñu gisoon ni war nañ ko mën a partager am na beneen euh, kii moom day tooñ njaay njaayeen ni sax quoi ndax man mii di présenté émission bi njaay laa sant muy euh, dugg ci suñu 18 fi mu ne nii ndax ne nee na gëm na ni Sénégal vraiment dëkk njaayeen la quoi li ko waral mooy image bi mu joxe nee na Fouta Tampi Njaay la sant gis naa image bi comme ni ngeen koy gisee noonu ci écran bi kii di njaay Dragon Ndiaye la sant ak kan am na beneen njaay Ndiaye dibi voilà noonu la xam naa ki def lii Diop la sant comme que dañuy tooñante entre Ndiaye ak Diop noonu la euh, parfois yi tamit dina tax ñu euh, digérer un peu reetaan mook internet ñoo ànd aussi parfois statut WhatsApp yi reetaan tuuti relax mook internet ñoo ànd question yi tamit da ngeen koy xaar lii eh, ci la ñuy profité di may ay cadeau yi nga xamante ni suñu sponsor officiel yi muy jiili CSB nag rond point cité kër góor gi di fas yéene àndandoog ñun ci émission bi maye cadeau pour internautes yi ju bari dañ leen di woo déjà am na ñu ñëw sax ñi ngi ci bunt bi di xaar seen ay cadeau ñeneen ñi ñi ngi eh, fas yéene dem ca jili CSB jëli seen loo foofu ay téléphone portable jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi Samsung yi bees yi mën ngeen ko amee foofu mooy fold yi famille bi mi koy jaay am na yeneen i ci diggante Colobane ak Gueule Tapée moom ji li di ko jaajëfal ci kóolute gi. lycée Berkeley aussi ci euh, dañuy ànd ak ñoom mooy lycée de qualité wala de référence pour ndaw ñi euh, ñi nga xamante ni sixième la ba terminale parent yu bari dañuy bëgg fu ñuy euh, inscrire seen ay doom rawatina fi jamono toll ñoom dañu méngoog jamono ndaxte dañuy former ndaw ñi ci xarala yu yees yi mooy application web mooy mbirum drone yi. intelligence artificielle lycée Berkeley da ciy former ndaw ñi donc parent yi jël leen lycée bi lycée de référence la pour euh, une formation de qualité am na solo am na image bu ñu fi bàyyi woon démb image cachée eh, démb métti woon na trop nag ndax gis naa ni gars yi bari commentaire nañu mais ñu ko trouvé yi tamit bari nañu di leen jaajëfal yéen internautes yi ci eh, interactivité bi message yi ni muy jàllee en temps réel Bouna Sarr la eh, nekk mu nekk ñu wokk ci équipe nationale bu Sénégal désormais jour bu équipe nationale bu Sénégal woom gi nag créé na polémique xam ngeen ko créé na buzz ci réseaux sociaux yi ñëpp partagé ku nekk joxe sa xalaat en tout cas ñëw na ci équipe nationale bu Sénégal bi waajal matcham bi samedi bi ci digganteem ak Habib yi ci éliminatoire euh, coupe du monde Qatar 2022 euh, Sénégal Nabi bi fii ci stade mais Bouna Sarr la ñu defoon image cachée bu Bouna Sarr d'ailleurs moom ci boppam euh, génn na wax première interview am gannaaw bañ ko convoqué ñëw rejoindre tanière bi ñu dégtalee l'élément bi. vraiment très heureux c'est une très grande fierté pour moi pour ma famille mes proches et je suis vraiment très content d'être parmi vous avec mes nouveaux coéquipiers. le coach et, et ce staff. Ils m'ont très bien accueilli. Après, la chance que j'ai, c'est que j'en connaissais pas mal avec qui j'ai joué par le passé en club. Donc euh, forcément, ça facilite mon, mon intégration et c'est toujours un, un, plus pour moi d'arriver dans un groupe où il y, y a des, têtes que, que, je connais déjà. Bah déjà, le groupe, il a l'air de, de, bien vivre. Je pense qu'il y a une bonne, euh, une bonne entente euh, entre les joueurs et c'est aussi pour ça que je suis venu, parce que j'avais eu des, des bons échos. par Khalidou, par, euh, par Et c'est vrai que c'est aussi une chose qui m'a motivé et qui m'a poussé à, à rejoindre l'équipe nationale. Apporter ma pierre à l'édifice am na chance ñu koy euh, souhaiter bonne chance moom euh, Bouna Sarr di désormais latéral droit bu équipe nationale bu Sénégal moom Bouna Sarr moom ak Cheikh Amadou Bamba Dieng ñoom ñoo yees déjà ñoom ñoo tuddee novice ci équipe bi def nañ leen li ñu duppee busutage maanaam booy doog a ñëw bees ci équipe bi dañ lay fecciloo image yooyu def na buzz Instagram Facebook Twitter wala Instagram partout sax ci réseaux sociaux yi ñu ngi koy euh, partagé ñu dégtal leen ñoom ñaar seen visitage euh, euh, ci tañeer bi. jaajëf Pierre Da Silva réalisateur connecté Pierre euh, ba tey internet yaa ngi laajte Pierre Da Silva nee nañ ngay génn ci tele bi ñu xool la euh, ni nga nekkee réactif moo tax xam naa ak surtout gars yi dañu li may wax Pierre Pierre Pierre dañu la bëgg a euh, gis dina am incha allah mais moom mooy joxe. est que xam ngeen ni saa yi ku fi ñëw fii ci télé bi bu ñu la choisir nga jël si ci loo yi Pierre moo lay jox loo yi moom ci loxoom lañ teg lépp de moom mooy chargé de distribuer les <laughs> jaajëf euh, Pierre bu ñu dañuy des toujours ci football bi na ndaxte démb bàyyi woon nañ fi benn vidéo mooy séeréer bi nga xam ni def na euh, tolle ci réseaux sociaux yi ñëpp partagé nañu suñu mbokk séeréer la technicien nag am xam-xam te man maa ngi doon wax ni suñu journaliste bi nekk fii di Ibou Diouf dinañu tekki lu mu wax effectivement Ibou Diouf def na lu ni mel tekkil nañu lan la coach séeréer bi doon expliquer joueurs yi ngir ñu def ko ci terrain bi acca li ñu mën a jàpp mooy euh, c'est quelqu'un ci connaît le foot parce que boo xoolee terme yi muy utiliser da ngay xam ne c'est à l'ancienne donc euh, quand il te parle du poste de quatre da xam ne kii ko xam football la te yàgg na ko ci également quand il te parle du neuf ak positionnement bi nga xamante ne euh, quatre bi noonu la mën a am pour empêcher neuf bi mu évoluer nga xam ne kii kuy suivre football la te xam na ko c'est vrai que gars yi comprendre ñu li muy làkk mais c'est vrai bu bu doon euh, en wolof peut-être dina gën leer seen bopp mais li ñu mën a jàpp en résumé c'est quelqu'un qui connaît le foot et qui le suit depuis des années certainement euh, schéma traditionnel c'est différent du foot moderne parce que léegi déggatoo ci wàllu football ñu wax ay cadres on parle peut-être de stoppeur deuxième défenseur euh, qui coupe ligne par exemple mais loolu euh, moom loom lay imposer donc ay libéro la lay wax ay postcard euh, donc euh, vraiment c'est c'est important yaakaar naa war na mën a inspirer yenn coach yi nekk ci. jaajëf Ibou borom les bonnes feuilles de la rédaction di ko jaajëfal ci lim ñu tekkilee coach bi lim doon wax ndaxte vidéo bi euh, devenu viral ci réseaux sociaux yi TikTok Facebook ñëpp di ko partagé xam naa di ci tooñal di ci tooñaale séeréer yi pël yi ñooy def loolu wala tukkuleur yi xam nañu bu baax te pourtant ku am xam-xam la ci football wax na ko football bu yàgg bi lay wax ay quatre stoppeur yooyu. xam nga ne année yu yàgg yi la football moderne leneen la ñuy wax di ko jaajëfal bu baax a baax moom Ibou Diouf di journaliste euh, fii ci télévision Futur Média ñu jeexale rek ak xibaar yi nga xamante ni toujours ci application yi ak euh, réseaux euh, li nga xamante ni mooy plateforme yi da leen di soxal muy Instagram mi nga xamante ni dafa fas yéene lancé li ñu duppee IG vidéo lancé woon nañ fi IGTV gannaaw ba loolu dafa amoon fu mu yem minutage bi gannaaw ba daf ko arrêté léegi fi mu ne nii IG vidéo loolu la ñu duppee mooy euh, Instagram vidéo bi nga xam ni am nga droit léegi désormais dugal lu tolloog 60 minutes euh, vidéo boo xamante ni 60 minutes la sur Instagram lu yees la ndaxte concurrence bi day concurrencer euh, lii ñu duppee YouTube moom Instagram mi nga xamante ni chaque jour mi ngi jéem a créer lu yees wala créer lu bees loo xamante ni toujours dina soxal ñii di internautes yi dañuy des jóge ci Instagram ñëw ci YouTube mi nga xamante ni dafa euh, gindi wala génnee li nga xamante ni mooy euh, kii di artiste bii di R Kelly R dañ ko euh, daanoon bu yàggul dara ci mbirum tegoon ko ay daan ci mbirum violence sexuelle yoo xamante ni le 27 septembre bii ñu génn la fële ci États-Unis gannaaw ba chaîne YouTube bi moom dàq na maanaam supprimer na lépp loo xamante ni ay chaîne YouTube yu R Kelly la. loolu nag li ko waral ñoom nee nañ euh, artiste bi fi mu ne nii désormais day violer lii di euh, droit wu euh, chaine yi maanaam li nga xamante ni mooy YouTube en tout cas information la boo xamante ni toujours dina leen soxal ci yenn artistes yi mais surtout ci seen ni ñuy jëfandikoo plateforme yi nga xamante ñenn ñi dafa duppee ni ay plateforme yu yees la am na solo. Euh, donc Instagram YouTube loolu am na solo Pierre Da Silva jaajëfal la jaajëfal équipe bi nekk ci ginnaaw ñoom Youssou Sila ñu doon monter élément yi ñu koy am en temps réel euh, jaajëfal euh, Tons Am ñu doon jàpp ci son bi jaajëfal internet yëpp wan leen image cachée bi balaa ñoo tàggatoo image cachée bi kan moo nekk ci ginnaaw image bi ñu bàyyi ko fi tey le jeudi vendredi émission du am samedi dimanche ba lundi ñu continuer réagir wax naa ko même bu émission bi jeexee am nañ possibilité dem ci plateforme yëpp Facebook Euh, Instagram wala YouTube di commentaire wax ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi ñu euh, bàyyi ko fi ba jeudi ba lundi incha allah ci beneen numéro lu xew ci biir internet.